si sénégalais yi ànd nañu si tabb gi njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye tabb Pape Toby tobigay si bopp société nationale d'électricité Sénélec Pape Toby Gaye nekk ko xam ne xam na bu baax a baax bile kër ndax yàgg na fa atum 2021 ba léegi moom moo nekkoon secrétaire général bu Sénélec Pape Toby Gaye ingénieur électromécanicien la bu jàngee sa école supérieure interafricaine de l'électricité mu ngi génne ci fukk ak juróomeelu promotion bu bile l'école atum 1998 la Papa Toby Gaye dugg biir Senelec jot na fa nag jaar ci ay poste yu bëri laata rek ñu koy tabb directeur général diggante atum 2002 jàpp atum 2004 moom moo nekkoon chef service production bu projet bi di record diggante atum 2004 jàpp atum 2006 moo jiite poste service ingénierie bokkoon na ci li di liggéeyam mooy amal ay njàngat ci wàllu ingénieur yi ci lu soxal ay projet yu direction production bu Sénélec moo doon nangu it lépp luy document technique ñeel yooyu les projets yu direction équipement Sénélec Gallo diggante atum 2006 jàpp atum 2008 lañ ko tabb sa poste chef exploitation bu centrale 3 bu Cap des Biches atum 2009 lañ ko tabb expert planification des unités de production sa direction des études générales diggante atum 2010 jàpp atum 2019 moo nga woon sa direction équipement foofee nga xam ne jot na fa nekk chef projet production chef département équipement de production directeur charge du projet MCA ak lépp luy projet gaz ak charbon tey jii ñu tabb ko directeur général bu Sénélec Sénélec nekk kër gu ama am solo si kaw mu réewu Sénégal toog bi tey jii war na dekkilaat kër gi le li koy xaar nag bëri na lool si jamono gi ñuy wax mbirum pétrole ak gaz war ko tàmbalee jëfandikoo Pape Toby Gaye war na def lay kàttanam ba njëgu courant bi fii si réewu Sénégal wàññeeku bu baax a baax niki ni ko askan wi di séentoo